dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal na ñu accident yi jamono ji nee na cobbay ci réew mi rawate nag tabaski gi nga xam ne ñu bari ñoo ngi bëgg a jóge gox bi nga xam ne fa ñu nekk bëgg dem ci beneen gox loolee bokk na ci li nga xam ne maanaam tax na accident yi daal di takkar naa seen ndax lu toll ci benn fan am na juróomi nit ñoo xam ne faatu nañ ci ay accident li quotidien moom mu xëy di ñu xamal na ñu lu soxal wàllum accident yi ci réew mi jamono ji commencé naa bari am toll si ñaar fukk ak ñaar yoo xam ne am nañu ay blessé ci ay accident yéen kaay gi di réew mi mu ñu xamal ñu accident bi nga xam ne moom ngeen doon dégg ca diwaanu Yoff ki nga xam ne moom moom oto boobee ak chauffeur bi kenn ku nekk tëj nañ ko la toll si juróom benn weer yoo xam ne maanaam daf koy tëdd yéen kaay gi di enquête mu ñu xamal ñu en tout cas li nga xam ne mën nañu ko jàpp te mën nañu ko wax accident yi commencé naa bëri ndax ni ki démb am na ñaari accident yoo xam ne am na ci autoroute Ila ba bëri na ñoo xamante ni am nañu saay gaañu-gaañu am na ku sa ñàkk bakkanam yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xamal ñu Tabaski gi ak lu soxal woppi coronavirus moytu moytuwulee musiba ma bu kumba gu rëy dina ci xew ndax jàngoro ji ma ngi gën a law ci réewum Sénégal ñuy faatu ma nga gën di bari mbaadu nag tabaski gi maanaam risque la girawaali gu rëy mën na cee xew ginnaaw gi yéen a kaay gi de Le Quotidien moom di ñu xamalaan ñu tabaski gi ak sénégalais yi nga xam ne maanaam ñoo ngi raj-raj loo kenn ku nekk bëgg a génn maanaam fi nga nekk dem tabaski ji loolee sax tax na askan wi maanaam fàtt li nga xam ne mooy geste barrière yi maanaam takkaay masque ak dandante bi loolee jamono ji mën wax ne kenn defutu ko ci réew mi rawatina ci lu ak marché yi yéen kaay gi nee na ñi nga xam ne ñoo fàttu ci woppi coronavirus maanaam toll na si ñaari téeméer ci ay nit waaye nag bu ñu waxante dëgg si du quotidien nee na cacophonie dëggantaan moo am ci communication gouvernement bi ndax Aly Ngouille Ndiaye moo joxe sañ-sañ kenn ku nekk mën na dem fu la neex te dégg nañ ministre Abdoulaye Diouf Sarr di wax ne kenn ku nekk na toog fi nga xam ne fa la nekk daal di fay passé Tabaski gi maanaam limité li nga xam ne mooy déplacement yi loole la Abdoulaye Diouf Sarr bëgg waaye nag Aly Ngouille Ndiaye dëkk bi ba lépp na weng yéen kaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu Tabaski gi kay dafa covidé maanaam en tout cas li am ba des sall tabaski gi tax na askanu Sénégal ñoo ngi doxalee doxalin woo xam ne dafay mel ni dara xewul ci réew mi dafay mel ni sax mbaas amul yéen a kaay gii di réew mi nee na bu ñu waxante dëgg Sénégal yi maanaam ñoo fàtte sax ne coronavirus am na fii yéen a kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal la ñu tabaski gi ak xale jigéen yi maanaam ñoo ngi ci mbaraan mu rëy yéen a kaay gi nee na tabaski 2020 mën na ñoo wax alhamdulilah ndax julli di nekk ci réew Sénégal maanaam ñoo koy feetalandoo te nag li nga xam moom lañ fi baaxoon gis maanaam ñaari tabaski yéen a kaay gi na ren ji njiitu réew mi di président Macky Sall ci l'observateur daan nañuy xamal nañu këram lay julle moom Macky Sall ak lan moo tax journal bi daan na ci dellu si yéen a kaay gii di réew mi quotidien xëy séq waxtaan ak Idrissa Diaby mi nga xam ne mooy directeur général agence d'encadrement et de développement des petites et moyennes entreprises daan nay wax ci Covid 19 ak jafe-jafe yi nga xamante ni maanaam am nañu ko nee na lu jege téeméer boo jël ñeent fukk ak juróom am nañu ay jafe-jafe li nga xamante ni maanaam mooy coronavirus waaye nag jamono ji dañu ko daal di taxawal te soo muy tuule dina bëri daal ay entreprise yu ndaw yoo xam ne dinañu am ay jafe-jafe maanaam tëj seeni buntu moom Idrissa Diabiri wax na ci deux cent milliards yi nga xam ne état bu Sénégal jàppale na ko entreprise yi ba tey yéen a kaay gi de la sa xëy di ñu xamal lan ñu orange ak yokku njëg gi nga xam ne daan na ko yokk loole nag neexul njiitu réew mi di président Macky Sall daan nay wax waa ARTP ñu daal di jubbanti waa orange laaj leen li ñu def ana fan la ñu ko teg am na rassemblement boo xam ne fas yéene nañ ko si am na bu si am am na ñoo xam ne jamono ji ñoo ngi ndax nee nañu orange dafa bëgg a ŋàcc as néew as tuut li nga xam ne moom la askanu Sénégal dese yéen kaay gi du l'observateur ñu fekk fa Aliou Sow mi nga xam ne député la nekk président conseil départemental bu Ranérou nee fukki fan ak juróoma la may Karim Sall ngir nag mu andiwaat li nga xam ne mooy kéwal yi orex yi su ko andiwul ñoom danañu daal di dem lu xorte ko génn ko yéen kaay gi di réew mi mu xëy di ñu xamal lan ñu xayma bi nga dañoo bëggoon a jóge seeni réew dem bitim réew faatu ci ndox mi yéen a kaay gi xëy nee na njiitu réew mi di Macky Sall jéggal na lu toll si juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay détenu comme ni nga xam ne moom la ko baaxoo di def bu tëbës gi jotee yéen a gi nee na Pape Ndiaye mi nga xam ne moo doon ànd ak ñoom Ino ak ñoom Alex doon def ay giraawaale ki njombe te ñu tëjoon leen si kasu bi Ino moom faatu woon na ci kasu bi Alex jéggaloon nañ ko weer yi ñu génn Pape Ndiaye Macky Sall gracié na ko ci tëbës gi yéen a kaay gi di enquête mu xëy di ñu xamal lan ñu jafe-jafe yi nga xam ne moo dox diggante seen Sonko ak askan wi dëkk Mbàkke maanaam ànd soppi ndoxu Mbàkke Birahim Seck jamono ji dugg na sa xeex ba yéene kaay gi di sunu làmb mu ñuy xamal naan ñu fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atum 2011 fanweeri fan ak benn ci weeru sulet 2020 maanaam 11 ans bi Balla Gaye 2 daanee ki nga xam ne mooy ame ndaw Ndao Tyson mi mu waxoon ne idolam la yéene kaay gi ne na combat Ama Baldé Modou Lô contrat bi doxoon diggante Luc Nicolaï ak Ama jeex na tàkk maanaam ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru sulet la jeex jamono ji mën nañoo wax ne Ama Baldé ginnaawam bandang ci boobule contrat